ci nga xamante ne bii yéen a ngi ñuy seetaan seen site bi di ma 28 TV télé bi nga xam ne moom moo leen di toppal tànk sëriñ bi euh, gannaaw bi ñu jógee biir Mbàkke Kajoor tey nag ñu ngi ñëw fii ci Gigis Bamba bu ñu nekk Gigis Bamba nag xam naa sama waajur yi moom daa mel dañoo dañoo xaw a yàkkamti seen xaadim waaye nag mi ngi mi ngi takk ak laxasaay ne ñu fekk fii ci barab bi nag barab bi nga xam ne fu la sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh gise woon euh, ñu koy wax Gigis Bamba dégg ngeen mbokk yi niñ ko waxee macha allah euh, sama baay Eh, wax ma tur bi ak bañ yëg-yëg nga am fii ci biir barab bi mooy xam ne gii gis bam fi la Sëñ Tuubaa ak moom seen gisee woon gisante auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim xayril maxluubi alayhim wala laaliin amiin mel na ni da ngaa taase ak tànnuk sunu borom sunu borom lay tànnal ndax ñaari télé yi fi ñëwoon barki démb di def reportage fële ca guy ga fa maam Cheikh Rafal daan dalloo ak ca barab ba maa dugg ak ñoom ca biir wax leen la fa nekk andi leen tawfeex wax leen li fi ne andi leen fii wax leen li fi nekk porte parole day porte parole ba muy porte fii maa yi xëy di fi gont te fi dara lu dul ndigalul sëñ Bamba ak Cheikh Ibrahima Fall fii la maam Cheikh Ibrahima Fall fekkoon sëriñ Touba jébbalu ne aslamtu nafsi fii la lépp xewee yoon wi fii la amee kayitu judd fii la yoon wi juddoo ku tax ku ñuy siyaare fa tax ñuy siyaare fii lañ demee bant ba taal foofa ndax maam Cheikh Ibrahima Fall sunu jàmbaar ja moo xaadimu rasulullahi seen jàkkaarloo ba fii dinaa ci wax tuuti waaye nag Ah, alhamdulilahi rabbil alamin bi nga fekkee mu ñu jox ma ndigalul sëñ Babacar bi yow liggéey bi ma nga ca France danaan doomam yii rajo bu fi ñëw booy wax na seen bàyyi daw da wax maa yore reportage ba nekk Daaru naan maa yore reportage bi nekk fii waaye kon wax ji niñ ko bëgg euh, sara day xaw a xat waaye kon ma def ko benn way rek dama koy def benn way mën a na jóg te way baabul muridi ku mën la way na déglu ndam pexe maridi xam ta xamee war a taggal li fi taxaw di leer kilee ko samp ma jox la ci ay firnde yu tax yow nga gore ci lamp faal mi doon nu wàqe ak njare maam Cheikh Ibrahima Fall rijjaalu leehi góor yàlla gu magga moo jóg di wër ba gis ahlu leehi sëñ bamb fii la ko gisee bam gisee ak Cheikh Bamba daa nërmeelu